di tële tële lañ koy muñal parfois nga takk jabar bu tële du mën na li mu sëy. waaye lislaam ne. gis nga sëy sëy jamono dagan na tas dagan na. sëy dagan na tas dagan mais jamono ji bu fekkee bëgg nañu delloowaat sëy. Mm-hmm. te man naa ne du delloo si waat. xam nga tax ba gëm ñu mm-hmm. jamono ji jikko yi gis nii. Mm-hmm. xale yi taxawal ko pour sëy kooku man damay defal ba mu baax damay dugg boobu tëb damay def nii damay def naa te boo duggee semaine doo ko fa def nga génnaat lan moo tax ñuy génn loolu du duggaat te ku dugg loolu la. lan moo tax gars yi di génn. loolu lu am solo la Moussa. Mhm. ndax li tax gars yi di génn tamit foog naa say ñaara ko seq bu weesoo ñi nga xamante ne nii ñooy famille bi. ñaar ñoo ko seq donc man est-ce que yow nangu nga ne kenn rek mooy def faute ci diggante yi. waaw xam nga sëy euh, est-ce que faute bi partagé wu. voilà dañu koy partagé kañ. Mm-hmm. ñaar ñëpp dañuy def euh, problème quoi mais toujours lu may wax te bokk na si sama euh, langage lu ma faral di wax jigen ni moy bo léegi da nga gëm Yalla. Mm-hmm. bu féké julit nga quoi mm-hmm. même si benen dina bo nek. bu deug dëggantaan deugantan, deugantan, bu dee dëggantaan laa da nga gëm yàlla waruloo def. Euh, justice pour yow quoi. Mm-hmm. yow jigéen bi. Mm-hmm. sa jëkkër si lu muy nekk. Mm-hmm. bu dee da ngaa gëm yàlla laa wax. su dee da gëm ne yàlla dina la defal justice. sa jëkkër si lu muy nekk. sa jëkkër fu muy dugg. sa jëkkër ku muy seet sa jëkkër ku muy waxal loolu yëpp bul ko lijjal. effectivement yow sëyal te yàlla rek tax. boo ñëwee nga am àjjana. bon su fekkee gëm la yàlla laa su fekkente ne nag yow da ngaa bëgg nag ngay def justice si sa ménage foo fi naan koo foo lekkee kooy waxal.

l'autre on lui demandera comment il avait entretenu son troupeau maanaam ku nekk si yéen ak sàmm nga te koroog yomal xiyam ñu la laaj li nga yoroon di koy sàmm na nga ko sàmmee donc su fekkente ne yow ku góor ki dangaa yor sa soxna te odduloo ko dëkkaloo ko defuloo si moom li nga xamante ne nii moo war sa diggante yow ak moom koroog yomal xiyam sa boroom dina la wax ne la yow li nga sa yoroon di koy yor mënuloo ko yor ben problème benen problème muy affaire euh, goor bu nga xamantene ne ni dafay am ay jabar yu mm-hmm. euh ba léegi di tas sëy bi sey mm-hmm. parce que souvent xale yi surtout loolu parce que yoroo mënoo tamit takk ben ba ñaar ba ñeent tamit parce que l'éducation fay am fa am fo xamantene dañuy tuumaal l'islam quoi mm-hmm. tout le temps te man je ne suis pas d'accord quoi donte bi euh, dama bëgg am ay soxna yu bari mais dama bëgg aussi Uh, man duma duñu ma jam quoi si si li nga xamantene ni mom lay sekh ak sama sama lima warlo ak sama digënté ak sama soxna quoi mhm. parce que yow mënu lo lah wax ne yalla mo daganal kan si yow ñenti soxna ba paré mhm. yow amulo temps pour occuper wu si njabot bi quoi mhm. légui xol xalé yi si mbali mi ni ñuy taxawalé xalé yi si sey bi lañu bok xam nga alors soxna yi boo ayewulee fii yaa ngi ayee fii éducation bi mënatul nekk xale yooyu ñoom ñooy màgg dañuy mhm. dispersé wu xale yooyu ñoom ñooy màgg am ay borom kër ñom yow temps bi nga xamante da nga leen di amel ak mhm. donc xalaat bi nga waron togon diko ko nan lañu wara def ci seen ménage mhm. amatu quoi donc y' a problème ci côté parents yi y' a problème ci côté société bi quoi donc y' a vraiment un problème quoi un véritable xam waaw si problème yooyu nag laay taxawee usman ba tey parce que tamit liñ naan problème parce que dañuy gis ne jigéen ñi chaque jour ñoom lañu naan ñoo sëyul jigéen ñi moo jàpp sëyul di léeg-léeg aussi dañuy gis ne problème famille da ciy dugg hmm. njëkke day ñëw toog goro ñëw toog ñoom it ñuy impliqué wu ci li nga xamante ne mooy sëy bi lépp loo def du baax ba tax sa léeg-léeg du doon yow sa jëkkër yow wax ñoom la ñuy doon ba tas sëy bi hmm. yéen loolu nan ngeen ko jàngatee. xam nga Afrique dafa am ay réalités il faut qu'on accepte les réalités de l'Afrique mm. je me rappelle une des France une des de, de mes amies françaises bu amon benn euh, jëkkëram jëkkëram sénégalais la mm. mu ñëw wax ko jëkkër bi waxtaan àllam yaa bu nekk daal dama bëggoon ñu divorcé mm. jëkkër bi comme xam na culture tubaab bi il a accepté quoi. mais famille yi di ñëw si tubaab bi. Mm-hmm. di koy wax.

defaluloo ay affaire toppatoo leen toppatoo leen quoi. Mm-hmm. su fekkente ne problème dafa am rek. Mm-hmm. ñoom dañuy yëg problème ne problème am na mais bu affaire bi di neex. ngeen di defaraat dañuy seetaan daal maanaam bu mu demee ba nii. tu as vu. day day ñàkk tànnante tam est-ce que du ñëw foofu parce que pour man bu fekkente ne nit dafa jóge këram. ñëw sama kër war naa koo xool ni sama doom bu fekkente ne yaay ja la war naa xool ne kii kat sama doom fa muy sëyee na mel ni sama doom la mu xoolee ko bët boobu tamit. loolu est du manqué. xam nga ci ñi nga xamante ne ñooy goro yi ak njëkkee xam nga il faut aussi. Mhm. man dafa am benn affaire boo xam ne il faut ma wax la ko. Mhm. gis nga nit boo ñëwee ci kër il faut nga xam ne loolu ci kër gi mhm. ñëwoo pour xool ay jikko quoi yow da ngaa ñëw pour bu fekkee non bu fekkee. bu fekkee yow da nga jóg pour sëy quoi laay wax bu fekkee da nga jóg pour sëy mhm. tey ak foo mënti dem bu fekkee yow da ngaa a dugg ci kër xam nga ni kër goo dem jikkoo nga fa. Mhm. ndax fi nga jóge ay jikko nga fa bàyyi. Mhm. mais yow da nga ñëw pour def sampu mais pour nga sampu. faaw nga affronté jikko yooyu. waaye la ci bàyyi dem Moussa dañ lay jox xar mi dañ lay dab di la. ni mbajaat naa ko bu fekkee yow yaa ci kër man d'accord naa nga génn mais bu fekkee da ngaa nar a génn après yow nga jànkoonte wat ak ay jikko mhm. toogal nga sampu mhm. fii ku fi sampu dégg nga lu ne mhm. ku fi jur ay doom mu doon wàlliwu dégg nga lu ne mais yéen yéen a bëggatul dégg lu ne li ngeen bëgg a dégg mooy neex na neex na mais loolu mënul dem mënul dem lii tas sëy mooy da ngeen seen ab dégg-dégg ngeen fat tëj ko dootu leen dégg dara li ngeen bëgg mooy affaire bi na neex seen ne neew fii yàlla rek ngeen xam ne da ngeen war a sëy te sëy bi il faut ngeen samp ndax pour pour ngeen sampul euh, mu ko waree il faut ngeen accepter ñi ngeen fa fekk ndax ñu ngeen fa fekk avant ñoom doo seen doom di ñëw ci yow dañoo waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord ko kon yow boo ñëwee ñoom ñu am ay jikko maire bi am ay jikko kii am ay jikko nga ne yow dama ko accepté damay génn wutal ma appartement damay génn wutal ma ni mais attends y a problème yow yaayu nit ki nga xam ni moom moo la jur moo moo moo jur euh, comment elle s'appelle moo jur. Euh, ku góor gi mm-hmm. imposé wu la même bu la imposé gis nga loo gis ay naxante la. Mm-hmm. man nag lenn d'accord naa ko ci àdduna. Mm-hmm. li tax dootuma xuloo dootuma mer. bu fekkee euh, waa ji may def ak émission tey bu ma mbéjoon. ma ne dootuma defati plateau. dootuma defati plateau. man leer na ma ni su ma mbéjee ëllëg dinaa defaat plateau dinaa daje koo xam ne du ma mbéj waaye dina ma wax lu ma metti léegi pour ma affronter loolu yëpp il faut ma accepter ñoom ñi may bokk plateau ni ñu mel. como você ma que ninguém me nga Euh, doon na loo am solo tamit nee nañ fi nga xamante ne sax fa nga dëkk am fa ndayax baay sax dafay am na koy muñ euh, kon nag su ko defee bu ñëwee dañoo dut baaraam tamit si li nga xamante ne mooy problème yi boobu ba tey aussi soxla nañ solution tamit parce que du ne problème rek mhm. daal di ka teg tamit mhm. faw laata ñuy tëj li nga xamante ne mooy émission bi lañ ciy defee si ay simili bareewul ñu énumérer quelque solution rek loo leen gis ne tey ji mhm. buñ ko utiliser woon sëy yi dina am tuuti apaisement

école C mhm. nu ñuy jànge ABCD ba mën a relire mhm. noonu lañ la war a former pour nga xam nan lañuy ñuy mhm. jëkk si nag bu ma doon ut professeur bu nga xamante ne ni dafa war a yor école C bi li nga xamante ne nii dinaa ko wax pour mu jàngal ko élève bi mooy euh, bu ñu commencé sëy amul dara lu neex lu naxaar yi la ñuy wax muñal. nee nañ ci kaw. exactement benn waaye dama kaa dégg mu wax benn wax bu am solo. ñu laaj ko nekkoo ko dañu bëgg a wax ñu suñu sa soxna mu ne sama soxna daal yamba laa koy tënkaaleel ñu ne ko yamba mu ne waaw mu ne ndax xam ngeen lu yamba man gars yi ne jam mu ne déedéet waaye man naa joxe lemi donc euh, diggante bi dafay am jam-jam bi ak saf-saf bi quoi donc mu ne jabaram moom lépp la koy tënkaale yàmbal mm-hmm. mm-hmm. donc sëy dafay am lu neex ak luy metti mm-hmm. beneen point bi nga xamante ne nii impérativement dañ ko war a xam si sëy bu ñu commencé si njëlbeen bi mooy man ak yow dañoo nekk ñi bokk teen ñooy laxasoo ay gocc. kaa ñu dëkk mooy kaa ñu xuloo. kaa ñu dëkk mooy kaa ñu jàppante faw muñalante léegi beneen bi nga xamante ne ni il faut que ñu xam ko su fekkente ne nii dañu sëy mhm. nañu xool suñu papa ak suñu yaay mhm. dañoo nekkoon di xuloo di xasante kii ñu màgg fekk leen fi ñu fe ñu fekk leen mhm. donc dañu war a ñëw fekk ñu ñun ñu nekk quoi parce que su fekkente ne ni dafa naxare rek ñu daw comme ni nga xamante ne ni moom la waxoon alors dafay doy waar léegi li nga xamante ne ni aussi wax naa ko benn xale mu ñëw ne ma dama dama jël soxna ma oo ko ça fait dix ans boobu ak léegi ma ne ko dinaa la wax leen di ngeen commencé six mois yi dafay neex. Mhm. Euh, année bi mu ngeen commencé di xuloo bële ngeen commencé naan dugg na fi génn na fi def na fii wax na ma fii loolu mooy procédure sëy. Mhm. sëy il faut que dafay am ay tolof tolof léegi du ay o ak ay baar beneen nag si solution bi nga xamante ne nii moom nga indi mhm. ma dajee woon ak benn yaay boo xamante ne nii nee ma sama goro yi set lañu si kër gi waaye bi ñu ñëwee ma leen bugguma leen parce que man samay doom. Euh, balaa seen papa di génn àdduna dafa ne ma samay doom yi bu ñu séparé ak yow bu ñu séparé wu ak bu ñuy bàyyi si léegi bi xale yu jigéen ñëwee yaay bi dafa jàpp ne jeex na léegi lu mu waroon am digganteem ak ay doomam daf koy ñaan goro yi dañ koy jël mhm. moom mooy yóbbu si néeg yi jox si jël añ bi bu famille toggee mu séddale famille loolu neexu leen mhm. mu ne leen yéen ñëpp man bugguma leen samay doom bëgguma leen femme yi tas ba mu des kenn mu ne ko yaay yow man maa la bëggal sama bopp mm-hmm. yaay bi nee na lu mu def def def def def def xale bi ne yaay bañ ma bëggee mais yow man maa la bëggal sama bopp yaay mu ne koy mère bi di ko maltraité mère bi nee na ki mu gënoon bañ mm-hmm. mu ne ma dugg ubbil sama néeg boo demee yaa ngi koy fekk sama lal mu tëdd na le quoi donc nattu na ko manœuvre na ko def na ko façon métit bu ne femme bi ne ko man daal yaay koy mm-hmm. yaa ma war a def lii man damay toog damay sëy quoi léegi nag euh, benn point bi nga xamante ne ni moo gën a essentiel te maire bi wax na ko mooy mm-hmm. moom bi mu nekkee xale mm-hmm. daawul toog ak ay moromam ay màgget la daan toogal di waxtaan mm-hmm. bu màggee fii di wax muy déglu li ñuy wax mu di ko jëfe waaye tey su doon maay yow su dee man sëy moo fi jóg sëy fi jeex sëy yu yooyu sëy yu njëkk yooyu noonu. moom ku ne sa xel doy na la. kenn déglootul mag. Euh, muy lu am solo Ousmane fi nga daanelee am na solo lool ndax li nga xamante ne mooy sëy yi ni ko Ousmane waxee dëgg la war nañ demaat jàngiwaat ko ibbi ay école ku si nekk xool fan la lan moo doxul ñu xool li nga xamante ne nii si la ñu war a dut baaraam Moussa yow lan ngay euh, proposé tey jii si ay solution gannaaw ba Ousmane indi na li nga xamante ne mooy école ak demaat jege ñi nga xamante ne ñu mag jaar nañ si sëy am nañ expérience yow gannaaw loolu loo waaw fi mu daanele lay lay yëkkatee mooy euh, fi soxna si dajee lu ne. Mhm. mooy li mu la doon wax sànq. Mhm. il faut nga impliqué wu ci li nga xam ne moom nga bëgg. Mhm. da ci daj muy xaaral xaar moo ko may loolu yëpp. kon il faut que solution bi lenn la. mooy il faut que femmes yi xam ne dañoo war a encaisser. te li ñu war a encaisser du seen njëriñ. seen jëkkër mais ñoom ëllëg seen njëriñ la ak seen njëriñ lu doom kon il faut que sëy bi xam ne dafa nekk Sénégal. nit ñi arrêté doon ay naafeq. ni ngay arrêté di dugg ci fi jàmbure te nga yor sa nopp boo ko dékkuloy sa jëkkër nga dékk ko keneen musiba rek ci la indi kooku mënoo mënoo jël say nopp jox ko keneen bàyyi ko ba pare ni kooku ngay séyal kon affaire bi xoolal moom lu mu lah mhm. am nga doyloo ko ci li mu ne nga gëmloo ko ci li muy bi muy dox nga dox ci lim la tere nga bàyyi di nga solution bi yëpp c' est vrai mais di am solo sa jëkkër indi na la yamal ma ci guddu kër gi yam fa togol fii togol fii tëddal tëddal dëppul dëppul dama nga lakk sa bopp dama nga lakk sa bopp ngërëm rek nga ci am ak sant waaw man nag waaw waaw sant naa maa ngi maa ngi sant bu baax si invitation bi comme li ko ki defa nga waxee émission nga jël waaye nag ma ko xam maa la ko jox maa ngi jéggu ñuy jéggu ndax moom lu mu am ñun ñoo ko moom lu mu am ñun ñoo ko moom moo tax dañuy dañuy am fit Mhm. ndax moom moo ñu doole naa quel que soit alpha moom moo ñu dooleel mhm. fii ñu taxaw tey di wax euh, bu ñu fi taxawee aussi moom la mhm. euh, oyof la oyof la moo tax mu ñëw fii bokk ak ñun émission bi ba pare ñu nangu jël émission am ndax émission moom ni mu koy defee sax ñun wax dëgg yàlla ñu koy defee noonu te mënuñu ko sax defee noonu mais nag moom am nañ waxtu que ni incha allah ñun dañ ko defee nu raw que moom ni mu koy defee ndax bi euh, ñu ci tànk nekk suñu ginnaaw di ñu war yoon kon eh, man ma leen dama lay jaajëfal. Eh, ñu lay jaajëfal Moussa itam waaye tamit comme buñ ko tënkee rek li nga xamante ne mooy sëy mhm. bari na ay sooxee lool bëgg bari na lool li nga xamante ne eh, jaar si yoon waaye lépp rek dañ koy donk résumé si cadre muñ mhm. ax li nga xamante ne mooy doylu kon nag su ko defee nag ma bàyyi sama mbokk yi ñu tàggoo ñu daal di tëj émission bi. jaajëf. Ousmane voilà donc euh, euh, Marème. Euh, il faut que je wax ko. Mhm. pour euh, internet yi nga xamantene Sénégal TV. Mhm. yéen euh, ku leen yapp dañu fekk ngeen di nelaw. Ah, euh, yéen ngi comme ni ko yi di waxé ngi def bu am solo ci internet bi motax mhm. man ko damay am courage pour vous parce que tituma koy lu gën ni modestie alors euh, ngeen waxee ni ngeen waxee mais li ngeen wax si man si yéen la nekk euh, di fàttali rek euh, ñi nga xamante ne ni ñu ngi nekk si sëy ne sëy waxuñu ne da ngay war a muñ ba ko jigéen ki dafa war a dee amee ko waatur sonn muñal muñal muñal bi moo fi jeex mm-hmm. mais nag nañu xam ñun ñaar ne ay sàmm lañu mm-hmm. ku nekk am na lu ñu war ku nekk am na si part de responsabilité mais jàpp ku jigéen nga ne kaan muñal muñal di ko teg yoo xamante ne ni musiba la loolu baaxul ba man d'accord ma si loolu ba donc il faut que ñu ñu ñu waaw mais il faut que ñu ñu waaw waaw jël lépp sauf que jigéen baaxul quoi d'accordul quoi d'accordul d'accordul au moins am na kuy défendre jigéen am na kuy waaw xam nga mais mais nag am na jigéen yoo xamante ne buñ ñu ma déggee dinañu jaaxle xam nga li metti pare mooy euh, émission bi dafa tëj ba pare mu tëjiwaat ko quoi waaw c'est ça loolu

ak yow quoi mhm. léegi bu fekkeente ne loolu yépp mënul nekk toogal nga sëy sa sëy te yàlla rek tax mhm. koroog yomal xiyam sunu borom dina la fayal boppam su fekkente ne nii gëm nga ko di laa kon nak sey sa sey te yalla rek tax bu fekkente ne suñu borom rek moo la tax a jóg loolee la ñuy daanelee li nga xamante ne suñu émission tey jii comme niñ leen ko waxee woon lii mooy taxaw seetlu li lañ leen indi loolu li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk si sëy yi ñu dul fa baaraam fi nga xamante ne nii mënuñu faa ñàkk ba ña dul baaraam donte ne laaluñu lépp li nga xamante ne nii nañ ne buñ leen ko indilee di ngeen kontaan mbokk internet yi loolu lañ leen fi indi loon di leen jaajëfal rek si top gi ñe ñu topp ñun waa Sénégal TV boobu ba tey safoo ñu euh, di gërëm ki nga xamante ne nii mooy suñu caméraman bi di Aïcha boobu ba tey muy def liggéey bu am solo waaye itam suñu réalisatrice euh, bële di Ndey itam ki nga xam ne mooy maman jàpp na ci ak ñi nga xamante ne ñoo ma jag-jagal nii euh, di leen jox rek di daje beneen yoon nag beneen taxaw seetlu ak yeneen yi jafe-jafe ñu bëgg xool daal di ko indi saafara.